mais plan bi saf naa waaw euh, dañ naan euh, wiiri wiiri jaari ndaar yi te li doon liñ doon xaar mu yegsi muy ki nga xam te ne mooy parrain bi mooy borom bés bi di xaadim kebe am na ñu mbegte bu baax a baax a baax ci dalal ko ci plateau RTT TV parce que bis bi bi mu talaata jógee dañuy dama koy tuddee ñi nga xamante ni nii ñooy samay mag ñoo ma tette ñoo ma jaarale yoon ñoo ma tax ma doon dara ki nga xam te ne mooy xaadim kebe nekk grande couturier international Sénégal xam nañ ko macha allah ñu dalal ko ci suñu plateau la RTT TV xaadim euh, ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen nuyu bu baax Pape. mbaa am nga jàmm bu baax a baax sant bu wërëwër leen sant leen gërëm. alhamdulilah xaadim d'abord bala ñoo sori ci waxtaan boo toogee tey Thiès toog jàkkaarloog télé boo xam te ni tailleur yi ñoo ko ubbi. lan nga njëkk a yëg d'abord. lu rëy a rëy rëy macha allah di nuyu mbokki Thiès di nuyu mbokki télévision RTT TV ak tous les téléspectateurs yu ñuy seetaan. vraiment di yëg lu rëy a rëy ci li nga wax sa question macha allah c'est pertinent mais vraiment tey ak fii fi ñu fi ñu bàyyi woon affaire bi ak fii affaire bi egsi tey macha allah yëg nañu rëy a rëy rëy wax xaadim boo demee ba yàgg nga gis xale yi nga xam te ni ñu ngi doon teetew nekk ay tout tànk jaar avenue général de Gaulle ñu jàpp seen i wajur jàpp seeni i loxo andi leen ñu dem di saytu ji métier. Mhm. tey nga gis ñu dem ba taxawal structure bu toll ni ture Events nga ñëw gis ñu woote lu doy nii. Mhm. dara jàll la jox la ko mhm. loolu rek déjà ban tolluwaay nga ci mën a wax. tolluwaay bu rëy a rëy rëy rëy bu rëy a rëy macha allah vraiment li ñu gis wax dëgg yàlla doy nañu macha allah gis nañ yéen a ngi ci yoon. vraiment amuñu loolu di félicité di leen gën a ñaax ngeen gën a yokk lu ngeen defoon ngeen gën ko yokk pour jëm ci kanam waaw incha allah incha allah euh, lu waay nekk rek yàlla fekk la ci bu soobee yàlla. ñu seetlu ni doomu Cees yi mosuñoo des gannaaw. ndax ku ne xam ne ne kajoor njam njàmbaar yàgg na fi mm-hmm. ngeen jóge fii fekk fi baax mm-hmm. góor góorloo fi jóge fi wuti ji mu baaxoo woon nag doomi kajoor saa yu demee bu amee guddi guddi day fanaan si waat mhm. euh, ku ne xam na ni xaadim macha allah ku ne bëgg nga mu ñëw dund liggéey ak yow mhm. ban euh, relation la ñuy xaar ci xaadim kebe mu dellu si waat au niveau de la région retourne au bercail def ay investissement wala sous forme partenariat ci biir regroupement des tailleurs bi nga xamante ne nii tailleurs yokku nañ ba dem ba organiser wu ba am manière bu toll nii alhamdulilah loolu ci lañ nekk d'ailleurs mhm. waaw depuis foofu longtemps mu foofu longtemps mu nekk suñu xel ci la ñuy nekk ci la ñuy mus dëngu ci yëngu muy suba mi guddi mi bëccëg ci loolu la ñuy dox ci la ñuy xalaat saa su nekk. donc vraiment euh, jeune Thiès ku leen xam ku ne xam ni ci ci ci ak njàmbaate ngeen xam. kenn nangutul toog kenn nangutul tëdd ba yandoor. ñëpp ngi tegu ci même ñi nga xam ne amuñu métier sax ñu ngi jéem a dem di dawal seen seen i moto pour mën a am dara lu ñu bëgg donc pour wax ni la. jom lañ mos sa feese comme li nga wax ci Kajoor Kajoor jom moo fi mos a sax donc surtout Thiès les jeunes de Thiès les jeunes artisans de Thiès ku ne xam na ni mosuñu toog toujours ñu ngi jéem a promouvoir l'art bi pour mu jëm ci kanam mm-hmm. donc surtout ci wàllu fànn bi ñu nekkee mi wàllu wàllu couture bi vraiment gis nañ ci ay évolution yu mag a mag mm-hmm. waaw di leen féliciter rek vraiment di leen encourager et xam ni waaw yoon jeexul wax si lu jeex mu mel ni xaadim da ngaa yëg darajey bis bi ba bi ngay ñëw euh, mënoon nga yable wala nga ñëw ñëw bu xaw a simple mais da nga ñëw ànd ak mbooloo wane ni bëgg yëg moo koy fay loolu ban yëg-yëg am ba tax nga ñëwee nii dara je suis de Thiès je suis né à Thiès fii laa commencé tey fu ma mën a egg ci wàllu ñëw bi grâce à la grâce à doomu la donc amul di leen félicité di leen ñaax di gën a ñaax les jeunes couturiers ñu gën a inspiré wu yoon boobu parce que ñun amuñu lu dul Thiès te lu waaye mën di amit koy indiwaat incha allah donc defuñu lu rek vraiment di encourager tous les jeunes qu'ils puissent vraiment euh, sàkku xam-xam te ñu bañ a yàkkamti dañ gën a sàkku xam-xam bañ a parce que ku ci nekk bu ñu xawee fi mu jaar ba egsi fu nga xam ni vraiment kon man nañ ni ñu ngi xaar ay euh, coopération ak ay relations yu gën a particulier Khadim Kébé ak euh, les tailleurs de Thiès. Mhm. effectivement effectivement mhm. effectivement. Mhm. waaw mu nekk loo xam ne nii ça sera pour développement de tous les jeunes de Thiès. donc ñëpp gis yoon wi gudd bari ay xaaxaam euh, ku bëgg a xuus jàll pakk pakk yi bari ban. message ngay jàllale ci ndaw ñi nga xamante ne nii gëm nañ ko ndax ñu ngi ci yoon wi pour mu dolli tuuti li leen di ñaax ñu gën a mën a ñaaj jëm ca kanam. waaw mais sëgg rek. mu xam-xam. sàkku xam-xam yi mooy lépp. sëgg sàkku xam-xam bañ a yàkkamti a parce que lu bari ci jeunesse su léegi. yàkkamti mu leen di lu bari bari. nañu sëgg ci sàkku xam-xam. bis boo sàkku xam-xam ba téye rek li ci des day ñëw macha allah. xaadim bu ma nee la Daouda Wade Pape Malang Konté Alaaji Cheikh Wade lan nga ma mën a fàttaliku tuuti rek ci loolu ñetti tur ma la tuddal. Daawud Wade mooy suñu grand. Mhm. moo ñu dugal ci métier fa lañ commencé. Mhm. lu ñu xam moo ñu ko commencé la macha allah. Mhm. fa lañ jaar yàlla def bañ fa jugee. jugee foofu dem ci Mathias. ñu jugee ci Mathias ñoon yàlla def suñu parcours dugg ñu Abidjan. ñu defee Abidjan quelque temps dinañ jugee dem Italie. macha allah demee Italie yàlla dafa def ñu dem inscrit ci école a mag. au niveau de la couture de l'académie de Lousso. macha allah waaw fa lañ jëm mu une académie mhm. suñu diplôme. Mhm. bu ñu amee suñu diplôme mhm. xalaatuñu lu dul tourné suñu réew. macha allah indi ko suñu réew. macha allah doomu réew jàpp. macha allah dem dem yàgg yàgg wuti pour sa réew pour sa réew jëriñoo ko. di kaddu yi nga xamante ne ni euh, le parrain moom moo ko yëkkati kii wax ci moom yomb na parce que avenir général de dafa fa jaar nekk ndaw gëm boppam góorgóorlu yoon wi jafe woon trop mu daan jóge Medina Fall di liggéey si avenue général de Gaulle dara xëyul sotti loo gis dañ koo tàmbale ca à bas di ko dajale di ko xàll di ko yaatal di ko jubale ba tey karkar mën a doon kàdd lépp rek gëm la njàmbaar la yaakaar la xaadim ñu ngi lay béggee bu baax a baax mais wax nañ la tey sañ nga merci beaucoup euh, kon ñu ngi lay souhaité bonne soirée bàyyi la ak public bi nga yegg ndax xam naa ne public Thiès na mu nañ la macha allah jërëjëf ñu bàyyi ko mu yegg ci biir ñu toogaloon la grand parrain di Khadim Kébé nekk ndaanaan nekk renommé international ñu dem ba ñëw dalalaat beneen ndaanaan. Serigne Mbacké ak Maram rakki Mamor Jaara sëriñub Cerno Birahim Ndaama la ca daaru góor gi demoon Gabon jaari maa yombeeg ndimbal wëri bàyyi ba sa baara maam yi dana seex góor gi semmal fuuta gàgganti gànnaar bàyyi sëriñ Saliou Mbàkke borom xel koom jaaga borom gotok njurul borom jàppandal xabaan alaaji borom lagan ak mbooka sa yaakaar ja borom joowaan ga teroon xay ga maami ndongo yi bàyyi sëriñ Cheikh Saliou ak sëriñ Moustapha Saliou bàyyi sëriñ Moutala Saliou bàyyi soxna waalo bàyyi sëriñ Abdoulaat Mbàkke ñu dénk ko jigéen ju baax jolof-jolof bu mag bi muy Kumba Jeng Saala mu baax mi te seet daagu leen biram ñeme Kumba kilifay buur Alburi sama ma nga daanu dooso biram penda baaye ma nga daanu dënale leytu cukuli la cukuli njiglaan njiglaan sere sere njaajaan njaay alburi abo tardaak biram penda njeeme maami man soor buuna keroog ba jolof mare naan sa ma ba noon fukki teen ak ñaar waa jolof di ca naan mbokku ndayem madame Sall Diaw Diop mbokku ndayem Adama Diop sama directrice su rajo bi foo yendu gën waaye foo fanaan riis benn maala la ngi nangu ci réew mi waaye doo nangu beneen maala lu dul maala mag yàlla na sa lool papa nga ni lan addul ma ñu dem ngéwal loo riiral ma gën a kontaan xaadim rek damay kontaan xaadim kebe mi borom bàyyi riis yi xaadim kebe borom bàyyi riis yi ma jege maa ji seguni moom faal saa góoram jaar leen su bañ càmmañ roqay kebeeg mbay jaara jaaji kebi siin baa ngi di ceewot ma kewu paati ngaari amar kebi baay mi ngi di mbokki Thiès asalaamaaleykum mbokki Thiès ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi macha allah ñëpp kontaan nañ ñëpp kontaan nañ di féliciter sama frère sama rak Talla Touré borom Touré Events di ko sant di ko gërëm avec. tous euh, avec toute euh, l'équipe de Touré Events vraiment xew-xew bi réussi euh, dem na ak bu mag macha allah ku fi ñëw kontaan nga dem leen woon lancé woon défi ni leen dinaa ñëw jóge Dakar ànd ak sama ay xarit vraiment ñoom ñëpp bi ñu ñëwee gis nañ leen surprendre macha allah gis nañ ba gis loo xam ne xaaruñu ko woon vraiment donc amuñu loolu di leen gërëm di leen sant di gërëm sama soxna bi ma gunge depuis boobu ba tey ci liggéey bi muy guddi mi bëccëg muy taw muy lépp mu ngi taxaw sama wet ma jàppale muy Koumba Dieng donc dama koy gërëm ah donc di ko ñaanal yàlla hmm. donc di gërëm samay sœur yi ma accompagné ñëpp ñëw vraiment jóge ba na Fall ñoo toog na donc ma bëgg ngeen ñaanal leen may leen loxo bu baax macha allah vraiment gis naa taxawaay bi seen déplacement yi réew ji man loolu macha allah kontaan naa ak samay frère sama grand frère Basirou ah. sama frère bi nga xam ne dafa bàyyi lépp jóge ba Dakar mooy Khadim ñaa ak sama grand frère Ndiak Faye ak suñu soxna su baax si Mami Ndiaye vraiment ak yeneen soxna yi toog macha allah vraiment amul leen remercier di ci taxawaay bi macha allah kontaan naa trop trop trop trop voilà donc di gërëm di gërëm daal di gërëm baay bi daal weesu na ko hmm? di wax nag fi ngeen teg seen tànk Murtada foofu la bu leen ko teggi wax dëgg yàlla man yàlla may na ma sens ma fekkee lu bari dox fu bari ci affaire mode dans le monde fi ma voyagé lu bariwul taxaw naa ci podium yu bari xam nga macha allah gis naa lu bari donc euh, comme j'étais dans une académie donc ça m'a permis de voyager beaucoup de gis lu bari ci mode bi donc fi ngeen teg seen tànk nii foofu la macha allah vraiment gis naa ni gis naa fi créativité bu doy macha bu ma surprendre nag boo xam ne xaar ma ko won vraiment euh, les choses sont harmonisées même musique qui accompagne les, man mannequins, vraiment, ça, ça, ça, ça, ça coïncide vraiment avec, avec le thème de, de, de la mode. Donc vraiment, fi ngeen teg seen tànk foofu la mm. ah dama leen encouragé ba vraiment euh, mu nekk ay ay ay ay événement événement événement yu tegaloo yoo xamante nii ba ba kenn du xam kenn du ko mën xam lim bi fu muy toll macha allah ah maa ngi leen di gërëm di sant mu daal lu ma la gërëm rek xeeb naa ko macha allah vraiment def nga lépp ba tax na indi woon nañ benn benn jàppale bu ndaw ah vraiment pour jàppale leen ko macha allah jox ma enveloppe bi s'il te plaît bu hmm? ko mu suñu muy suñu muy suñu contribution ci bis bi hmm? vraiment mu tëdda ban la ci sax bi hmm? donc di la encouragé mu nekk ay édition édition édition yoo xam ne nii macha allah foo nat day dem ba États-Unis dem ba fépp foo ko yaakaar ci àdduna macha allah parce que euh, nit lu mu amul moo ko mayal boppam parce que loo nekk rek bu yàggee yàlla jàppale ci hmm? voilà donc mu ngi noonu daal décourage décourage da laa leen di wax waa jeune jeunesse Thiès bi yëpp nañ gën a góorgóorlu loo xam ne fi ñu teg seen tànk foofu la yàlla baax na ah di féliciter sama sama sama ñi jógee sama atelier ñëpp ànd ak man vraiment ñu ngi nii bàyyi seen lépp ñëw te bu leen neexoon toog fa mais dañoo dagg seen yitte xam nga dugg ci oto yi ànd ak man jugee Dakar ba ba fii pour encompagner ma vraiment samay kanamu mbokk parce que man fii laa xam fii laa juddoo vraiment lu lu ma am lu ne fii laa ko commencé. donc euh, di leen sant di leen gërëm di gërëm tamit sama frère sama patron Abdou Wade. sama frère la sama patron la parce que bi may door moom ma doon jàngal bi may door moo ma doon jàngal loolu duma ko mës a fàtte voilà donc di ko gërëm di ko sant ak avec toute sa famille vraiment la famille Wade vraiment ñu baax lañ ñu taxaw askan lañu ci ci ci ci ci ci emploi des jeunes macha allah jërëjëf Moutada maa ngi lay gërëm di la sant encore ah merci beaucoup jërëngeen jëf jërëngeen jëf jërëngeen ko defee nag ñu def comme ni ko ba kàddu yi mu ci am na solo. oui. te nit ku ëmb la ndax li mu wax ci Abdou Wade léegi ku noogulul du ko def. merci beaucoup. waaye li wolof naan ku fàtte démb ku ci ne moom fàttewul démb. donc lu sargal. alaay Abdou Wade Pape Seck s'il vous mu baax ni Pape Seck ndaanaan. ndaanaan bu mag bi. Pape Seck est demandé s'il vous plaît. le grand maître tailleur borom RTT TV borom kàddu gu rafet gi. borom del déglu mag ñi ndax nga xam li mag ni dégtal. moo lay dimbali ba bu ëllëgee loo teg ci tànk dafay jub te dafay baax Pape Seck ngi noonu Pape Seck. lan nga ñuy wax ci Dalla. waaw. asalaamaaleykum public ñu ngi fii yëpp ak ñi toog. ñuy ak ñi aw ci yoonu ma tuuti kàddu yi may yëkkati parce que dama contre baat biñ naan diw dama koo jege ba matuma ci moom seere déedéet nit booy seere da ngay seere loo xam ndax ka jege moo mën a xam nee nañ euh, danaan waxkatu wolof bi danaan nag xamul neexaayu déeg ba ndax dafa naan dem waaye mbonaata ko xam ndax moom dafa nuur ba ca ban ba moo tax bu ma taxawee ci plateau spécial bu mel nii damay am mbégte tey dafa mel ni samay kàddu xaw naa sax a nege-nege te li ko waral lu tuuti la yomb naa wax ndax maa ngi taxaw professeur Abdou Wade yaakaar naa bu ma fàttalikoo avenue Général de Gaulle boobu marché central xawoon naa doy waar tuuti buñ nee tailleur ñu ni avenue Général de Gaulle ñu ni tailleur ñu ni rue de la Poste ñu ni tailleur ñu ni passage ndaama ñu séddoo ci ñetti pàcc ñenn ñu tudd ay tailleur civil di ñëw ay yére jigéen ñenn ñu tudd ay tailleur complet di ñëw ay sayreen ay raadaku pantalon chemise ay jupette ñenn ñu tudd ay tailleuru ndaanaan sunu way wu baaxoo yàlla na yàlla yokk ay leeram alaaji Cheikh Wade def ci lu am solo ak ñoom Baye Mor Ndoy mag ñu baax ñooñu waaye dafa am lu am solo danoo gis benn xale soo xamante ni nii nekk lu tuuti ñëw fekk ñun ñu xaw a tuuti dégg daal yi ndax ñoo ko ci jiitu woon tuuti waaye bu ñëwee ndeysaan ma ngay soox di ñëw nekk gone léeg mu kii fii léeg mu sedd léeg-léeg jafe-jafe am ndeysaan mu jàpp rek taw bàyyi nekk ca ñu naan waaw xale bi moom ndax dafa jàngantu métier rek ndax lan dafa bëgg a topp mag ñi ñenn ñi ne ak ah xale yi de dañoo gis lu ñu gis rek roy ko ñi gàtt xam-xam di wax loolu waaye ñi nga xamante ne nii bu nu xoolee jàkk ca ginnaaw la ñuy gis xamoon nañ ni kii ñu gis am na ambition kii dafa waaj a kër bàyyi kii dafa waaj a kër ndey muy Mourtala Touré nekk xale bu engagé nekk jàmbaar ay magam tatagal ko mu jàng métier mu wóor ba pare am ambition am fit am fulla am fayda loola nag du jaaxal kenn ndax dafa soqi ko Medina Fall muy quartier boo xamante ni nii quartier populaire la waaye ay jàmbaar yàgg nañ fa waxuma la góor waaye seeni jigéen bu ñu jógee sax fajar ñu ngay daan doole ñenn ñi di leen tudde ay mindaan man leen da ngeen juum ci baat bi kenn du wax mindaan mii na daan doole la ñuy wax kon ku tàyyal la jël sa loxo di ko tàllal nit di ci teg da ngay nangoo góorgóorlu te it daan nañ doxe benn bàkk ñoom waa Medina Fall mooy bu ñu jógee te ñu dem wuti xeebuk liggéey ba du tee ñu def ko méttiwaay ba du tee ñu def ko lan la ñuy gis jariñ ndey jëriñ baay dund seenu ñaq xale yooyu ci la Mourtalla Touré mii bokk may ñaan képp ku toog fii nga ñaanal ko mu dem ba Touré Events wër Sénégal war àddina xaadim jërëjëf lii nga def dafa tudd retourne au bercail ndax bu ma fàttalikoo tuuti ay jamono ci ginnaaw avenue Général de Gaulle weetoon na trop ngeen jaar fa def fa lu rafet waaye sa wëlbatikuwaat Thiès dina yomb aar xàll ko nit ko ba mu leer lay ko jokkale ko boo fay dox da ngay ñaaj kon fii rusoo fi sëgguloo fi ñu lay invité nag fi may wàccee kàddu yi mooy dañ lay invité li ñu lay invité mooy ñun dañoo benn mission ci turu président moom Mamadou sekk mi taxaw dafa jël le groupement des tailleurs yëkkati ko ba ca kaw ba ñëpp seen ko yaakaar naa ni bi ngay jóge Thiès di dem Abidjan jaar fa dem Italie jàng fa métier bay dellusi bàyyi woon nga tailleur daan jël ay kayit yi maçon yi daan euh, euh, euh, moole di ko lal ci suufu tissu pour muy représenter renfort foofu nga bàyyi woon ñaw tey bi nga dikkee maa maa la introduire ci la RTT TV télé des artisans regroupement des terres taxawal ko kon gàcce ngalaama ñooña waaw kay léegi nag li ma lay ñaan mooy ngeen gën a ubbeeku ngeen jàpp ci xale yi ndax dafa am benn borom xam-xam wax wax bu am solo nee na ndaw ñi yàlla moo ñu booleek ñoom bu ñu demee ba yàgg gisuñu ñu leen nañu taxaw séntu leen bu ñu leen séenee nég leen bu ñu nangu la ñëw ñu daw jël si leen waaye bu ñu dem bàyyi leen muy Serigne Saliou Mbacké loolu lay ñaan ñëpp ñu def ko ak ndaw ñi je vous remercie. merci ni moom la Pape Seck wax léegi bi muy génn Thiès macha allah wër àdduna am xam-xam retour au bercail. mooy monsieur Khadim Kébé merci beaucoup pour ta présence merci beaucoup pour ton soutien et merci à l'ensemble des gens l'ensemble des personnes qui sont là présentes parmi nous ce soir alaaji liir ko may leen ko mu liir ko ñu féete ginnaaw Khadim Kébé directeur général de Mamia Fashion pour service rendu au secteur de l'artisanat merci beaucoup ñoo bokk fu ñuy waaje ñoo bokk fu ñuy wàllee Gora Ndiaye merci beaucoup Serigne Mame Say borom marché central. mais borom Kange man maa a yéene sañse. waaw dëgg neexul sañsewul ñu laaj leen ko. mais mais mais Tapha Wade dégg naa euh, kenn du moom de. ah yow alaaji da ngay laaj. alaaji ndeke ndeke xale yi nii wëcc na sëñ Mountakha merci beaucoup. Talla. macha allah <laughs> ça c'est de l'art ça c'est joli. Khadim Kebe DG Mamia Tyson Couture Sargan. loolu ciseau la. merci monsieur mel na. dafa mel ni de Talla Talla jox ñu déglu ko rek mu terminé en beauté. ay ay Talla ñu asalaamaaleykum mbokk. Euh, maa ngi leen di sant di leen gërëm. Euh, man nag mënuma waxee ci micro. Mhm. mais nag euh, kii day sama mag yu baax. Mhm. tey boo ko woowee sama bis bii bettu ma. maa ngi koy gërëm di ko sant. ci taxawaayam. Mm-hmm. ak ni ma ñimeeloo. ndax bokk na ci ñi ma ñimeeloo. Mm-hmm. kon xaadim euh, bon maa ngi lay ñaanal. dina gën a gudd fan ak wér. amiin ñu bokk Mourtada maanaam bañu euh, fekke ay. amiin ñu bokk lu bëree bëree bëri. ñu bokk grand kontaan naa trop. a kontaan Mourtada mais mënu wax mbooloo nag. <laughs> <laughs> sama xarit bële di alaaji Ibrahima lépp ñoo ko defandoo baax la borom baax la baax moom it euh, tudde ma taawam ndeysaan ndeysaan macha allah euh, wax dëgg yàlla maa ngi koy gërëm macha allah ndax euh, fu ma gestu rek mm-hmm. fu ma tourné dama ko gis sama ginnaaw dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la ndax ak mbaaxaayam rek moo ko mm-hmm. waral dëgg di gërëm tamit soxnaam sële mm-hmm. di soxna Maram Gueye ndeysaan mu def balaam bële dikk rek jàppale ma sama bis bi moom it di gërëm samay mag ak mm-hmm. euh, ñoom Ndeye Touré ak euh, mm-hmm. ñoom Assou Touré. Mm-hmm. gërëm sama doom Thialé. wax dëgg yàlla Ndeye Mbayang. ndeysaan euh, ak Jingé Couture. ndeysaan muy Ndeye Marème Cissé. ndeysaan ñoom ñëpp maa leen gërëm di gërëm nag di beral gërëm. sama président bi man ki mooy sama président. muy béy di mbaay. kii tàccu leen ma ko bu baax a baax a a ndax maanaam bis bi bu demee ba àgg fii. moom bokk na ci ñi ma ñemeloo. moom ku ma ba max la mm-hmm. muy béy di ndax lépp ñoo ko ànd ñoo ko dox ñoo ko wax dëgg la dëgg la di ci teg nag euh, Mamadou Seck mii ak équipe bi ma àndal gaw si jëpp jiite leen mhm. ak euh, sama jigéen bi tamit mhm. wax dëgg yàlla macha allah bii jéey tamit maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen mhm. sant tamit di leen ñaanal tamit euh, président Abdou Wade moom it wax dëgg yàlla bokk na ci ñi nga xamante nii ñi taxawal bis bi la di gërëm tamit sama emprunté yële waaw di laay ak lu ndaw lële. Hmm. mu ngi ne la di <laughs> gërëm nag waa comité organisation. Hmm. ñoom it jàpp nañ ci bis bu baax a baax a baax a hmm. baax. macha allah di si jiital Baye Coro Mbuub. wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na. ndax euh, seetaanu ma leen benn yoon. ci bis bi di gërëm tamit ku ñaan euh, mbar mu ndaw. moom it wax dëgg yàlla ku jàpp ci bis bi la. man daal euh, suma ma gërëmee damay juum. kon daal gërëm naa Sénégal gi yëpp. Thiès waa yëpp nag ak tous les terres maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal sunu borom yàggal seeni i fan euh, ngeen jégal ma nag bu baax a baax ndax ma wax si mbooloo asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu